waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu képp ku ma ci fekk waaye nag di jël sama ziyaar bu kawe jottali ka sama sëriñ sama waajur sama bunt ci Cheikh sàmba ak ci Cheikh Mat Bamba moom kàddu yi kàddu cant rekk la sunu boroom ku sant ñu dolli la maa ngi sant bu baax sama diggante ak moom maa ngi sant sama waajur alaaji ma demba ñang moom mi ma ko jébbaloon dan ma ko jébbaloon booba fukki at wala juróom-ñeenti at la am wala fukki at mu ñëw ba kër ga ni sam papa damay jël ci sama cër si ma sàmba sama papa ni ah ki fi des de gone la sëñ Moustapha ni ko moo ma gënal ndax li ma war def ci moom yëpp danaa ko def ci moom kon li mu war def si man yépp def na ko si man juróom-ñeenti at wala fukki at ba yàlla def ba ma agsi fi ma agsi kon wax dëgg yàlla lam ko waxe woon sam papa def na ko si man ba mu mat sëkk bu ma fàtte mukk mu wax ni que nan la tudd sam daaw ma wooye ma dikke Malick la ma daan wooye mu ni que Malick lu tudd kon moom léppam diine la mu wax ni que ma demb ba soo ma joxee ku tudd Malick ñu ñu bokk ci ngiiru Malick kon de yaa may gën ñeex ci li ma nekk ma sant bu baax nag yàlla di def ñuy àndandoo ma yëg sama bopp taxawaayam may yëg sama bopp ni ma yàlla di defale ay yiw ak xéewal bi ma demee ba ak si université lu ma am nag si diplôme maa amee si loxoom certificat brevet entrée en sixième loolu tudd rek luy waay lu man tax waay jëm kanam booba man ak moom si loxoom laa ko amee bi ma demee ba iniwersité yàlla def ma jot sama bourse bourse bi ma jëkk jot fekk na booba xam naa ni seet naa ko si lépp nag ma xam ni kiin ma booleel mooy ki ma doy kiin ma booleel mooy ki ma mat dëgg-dëgg sëriñ ma jóge dakaar li ma jëkk am si bourse ma ñëw ba fii fekk ni ka dan ma daan jox li ma indi tey lii maa ko moomal sama bopp dan ma la jébbaloon tey damay jébbalu si natt naa ba nga doy ma sëkk ba nga mat ma sëriñ sëkk dama fas yéene jox la sama bopp ma ni ko dan ma doon wax ni ma kat wax ni ko dénk naa la sama bopp àddina ak tey nag kenn du ma ko wax maa koy waxal sama bopp ni ko naa la sama bopp àddina ak alaaxira man benn yoon laa mës jébbalu mooy sa kanamam mii ku nekk yàlla boole na ma ak moom ñu teg ma fan ma war teg bëgg ma ngir sëñ Touba waaye benn yoon laa mos jébbalu mooy si moom mii wax naa ko ni ka am naa yàqiinu ni ngay yéwane samay mbir foo toll yàqin boobu àgg na ba yenn saa yi sax samay mbir duma la ko jottali waaye sama xel su demee si yow rekk ni de ah sëñ Moustapha su yëgee sama mbir mii mu yëwan de mbir ma si saa si yàlla defal na ma loolu ci moom moo taxit dama ko jox sama bopp ba mu jeex tàkk te fu ma toll damay laxasuwaat waat yeesal sama laxasaay gën doon taalibeem aw ma fayam àddina bi yëpp xam na nan la mel si man waaye nag àddina bi yëpp xam na ni moo nekk moom mooy ki nga xam ni moo tax kenn mënul ma kenn mënul gis ma dikka dikka ree déedéet ñeewuma kenn ndax moom moom dafa ma jàngal ni ma cant bala moo wóor ki kiy sant dafay wax ba noo defa ni dafa dafa day damu te jublu si dul sant damuma de waxaloon nga ma sax sa bopp ni ma sëñ bu mag benn ko jëkk jàngal bi moo sant boromam di wax ilaahi xaadalaahu maa lam yëkkuni wala yëkkuni abadan li mun ni ñu bëri na defoon sëñ bi day damm te sëñ bi weesu na damm weesu na damm waaye booba cant gu wóor la doon feeñal digganteem ak boroomam mani ni cant gu wóor si doon taalibe sëñ Tuubaa moom laay feeñal sama diggante ak moom diiru ñu ànd bés bi nekk sama gëm ak sama pësteef day gën yokk jëm si moom kon danoo ñaan rekk mu yàgg fi loolu te man de bëri na du ma wax sama julli juróom yëpp waaye de bëri na bés bu nekk xaw ma ñaata yoon laa koy ñaanal mu yàgg fi te waaw ndax kat yàggam mooy sama njariñ léegi lay wax ni ñeewuma kenn waaye kenn mësuma tëkku kenn mësuma tëkku ba jot si man déedéet kenn mësuma tëkku ba jot si man kenn mësuma tëkku ba jot si man ndax kat dama am ku may yiir dama am ku may taxaw dama am koo xam ni sama lépp laa ko bàyyeel mu téyal ma ko ba mu mat sëkk doon naa wax fii bi nga xamee ni damay samp sama ndënd ni damay doon candidat wax naa ko ni que bu jëkk kat dañ ma doon wax ni Madické bokk na si ñi nga xam ni ëllëg gouvernement Macky Sall mën na dal seen kaw loolu di dem di dem ba mu mujj ni damay laaj réew mi xam nga ni ko kat kenn dalatul si kawam waaw may xëccandoog moom réew mi yàlla jox ko ko waaye ba ko yàlla joxee sa ëllëg sa sëñ Muntaxa tappal ma grade boo xam ni moom mii moo tax ma am ka moom mii moo tax ma am ka mu tappal ma grade boo xam ne ni ni ma li nga am moo gën jiite àddina bi yépp kon moom mii moo ma fàggul loolu sëñ Muntaxa wax te moo sëriñ tubaa su ma ñëwul woon tàllal ko sama loxo mu ñaanal ma ba mu dugg si euh, si ba ma dugg si élection yooyu loolu duma ko dégg kon sa kanam gii laa lay sante Mbàkke ñu ngi sant bu baax waaye di dellu di ñaan nga yàgg fi loolu te wér te di ko jëmmale nag si Cheikh Muntaxa xam naa fan la la teg am naa seen diggante bu baax xam na ku fi toogal sëñ tubaa rek am na fu la teg sëñ saaliwu la jëkke sëñ saaliwu bëri na lu moo def lu fii si kër gi dafay wax demal leen ma sëñ Moustapha man fu ma sukk si moom min ma ah jaar nga sëñ Moustapha ana sëñ Moustapha sëñ Cheikh Sidi Makhtar fii la dajale ay wëliis yoo xam ne ay yëre def ay parfum ay dàll indi la ko fii te daf ma daan wax ni ma sëñ Moustapha su neex yàlla dana ñibbisi daanu toog du fii si Touba ni ma dana ñibbisi toogandoo fii si Touba ndax moom kat dafa mënul ñàkk si yoon wi ndax taxawaayam ni ma kat man nag sama moroom xamul si moom lu dul ñaari yëf mooy jaamu yàlla liggéey sëñ sëñ Cheikh Sine Makhtar ma ma ko wax tam nga sëngee jël yàlla kon sant nanu bu baax ku fi mas toogal ma sàmba rek am nga ngërëmam la ko doole sëñ du May ba sëñ ab du Baax kon tey ngay Cheikh Massamba mat ka sëkk nag te feeñ na si lépp nag doo woote mukk ñu dimbali la si lenn yow kay da ngay dugal sa loxo nit ñi di daw di la dabi te kenn mënula dab feeñ na si daaru karim gii feeñ na si liggéey yu bari kon kat yàlla defal nañu kat ñu am sëriñ boo xam ni mën nañ ko tiituroo fépp si àddina bi waaw damay wax ni man li li gën a cher si àddina suñu waxee ni jamaa la mën sëñ tubaa weesu na jamaa waaye nag sunu sañoon njaboot sëñ tubaa yëpp suñ dul jamaa di nuru nuru di rey rey ba nuru jamaa waaye moom jamaa la kon Mbàkke ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ku ma am rekk xam nga ni man sama biir xol bii nga nekk weesu nga sax doon sama sëriñ dax bi sama papa liggéey dama ñëw ni la kat yamatuma si jébbalu si yow waaye dama jël njureel gi jox la ko waaw dama bëgg nga doon sama waajur dama bëgg nga doon sama sëriñ doon sama waajur nga nangul ma ko te nga mat ko sëkk li bala noo jeexal rekk Mbàkke danoo jëmale ay kàddu si borom bés bi te borom bés bi kat danga si seddu ba àddina bi yëpp xam ni seddu nga si àddina bi yëpp xam ni Cheikh Massamba gu mat sëkk nga Cheikh sàmba cëram àddina bi yëpp xam nan ko ku dëkkandoog sëñ Touba ku sëñ Touba wax ni toogal fii lu ñëw ñu bokk sëñ Touba si boppam moom moo tànn sëñ Massamba tànn moo gum nga tànn moo tax mu mën jël jële loxo soxna Issa tey maa ngi song bërëbam bi di ko defaral ba sant ko Cheikh Massamba liggéey ba tàmbali na liggéey ba tàmbali na ndax soxna isa dañoo amul fayam moo nu indil Cheikh ma sàmba seetal li daal soxna si kenn mësul gis soxna soo xam ni buur moo ko yor ñu wax ka ni que kat bàyyil sa bàyyil sa borom kër gi nga xam ni mooy buur nga dem si sëriñ sëñ Tuubaa rek ka am kenn mësul gis ci àddina bi